Diouf tamit yàlla loolu la ko defal. da ko génne ci askan. mais Touré ba Diouf am na am na am na am na kooku. di ca gannaaw di ko dëbbeel. mooy kan si kii wax ay mooy wax noonu naan ay. Eh, jëlee lay. waaw kaman ah, ah, ah, le. Eh, eh, sànni la ko côté a baax sunu xarit boobu. nee na ma Pape Diouf ay maamam waykat la ñu woon. bokkul ak yow de. xam nga yow yaay càppal culi <laughs> dégg saa rek nekk comédien yow tamit sëy yow tamit sëy Fadé amul woon comédien dama raté sama vocation yow moom sëy jàngal nga bañ yaa ngi dégg Touré waaw jël topp ca gannaaw Wally Seck ak ña topp ca gannaaw Pape Diouf waaw nanu xoolaat seen bopp waaw mais lu ko fi jar waa Touré waaw man man Touré. Pape Diouf di liggéey ba scandale yu jot a am dafa sax bëri. yan ñoo am ci diggante Pape Diouf ak Waly Seck. lax la scandale yu rëy am. artiste bu ne am nga plein droit. liggéey ak artiste bu ne ci réew. dëgg la mais loolay culture. mais eh. canalisation la la ah mais mais Touré. demal Zahir. waaw mais lii la ñoo ñu gën a mettre la musique. nañu waay tuuru nga tuuru nga tuuru nga tabe tabe tabe ku naan tabe tabe tabe te ñoom ñëpp dañuy diyo. colombe bi waaw orchestre de de de la de la Ragona waaw xam naa leen naa ko saranda del pour nga pour nga dañuy diyo jëlal festival euh, jazz yi am naat te lu gën a métti te jazz da ngay gis jazz man bu jógee Mauritanie waaw dem nga yaakaar tey jazz ak waa mu dem ba Gambie jazz ak waa Gambie mais luy problème bi waa léegi lan moo tax ñu bëgg fi indi ay problème ay non non non mais kii waru ànd kii kii kii la xamoon kii kii wax njëkk yóbbu fii kii kii Wally Seck bonul Pape Diouf bonul bu leen leen indi problème